asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw noo ngi nuyu bokk yëpp. waaw xam naa suñu fàllu moom. yomb naa wax ci moom yomb naa seere ci moom. ndax li ma ci xam la ci ñëpp xam. muy ku baax ku nekkoon ci la ko war ci wet yépp ci diine ji. ci bokk gi sax waaye bu rafet lépp nag mu jiral ci passé bu taalibe bi boo xam ne sëriñ Tuubaa rek ko ñoroon xam-xamam bépp da ko doon liggéeyale sëriñ bi ci diine loolu ko xam ci loolu nga ko xam moo tax li borom di wax naan diw ku ko xamut dégg nga ko bari na ñu dégg aw turam te xamuñu jëmm ji te ay wax kàddoom yu rafet yu am solo mooy tax ñëpp doon ko dégg mu jot na sax gis nañ ne bi si ayit yi ñu ba dañuy bàyyi xel ci xot ba sëñ Fallou jumaa bi ngeen xam ne lu ñu mën a jariñoo danañ ci génn loolu nag ci la nekk noonu la àndoon ak sëriñ Mountakha ci liggéeyam sëriñ Touba bi sëriñ Mountakha bàyyi ko xel lool def ko kenn ci jëwriñ yi mi wéttalikoo ci liggéey bi ca keroog bi nga xam ne wàcc na sëriñ Xaadim mii waxal yëgal nu ko yëgal nu sëñ bi sëñ bi daal di wax ne lenn ci kenn yi rek moo wàcc ba taxawaayam ci yoon wi rafetoon na lool ci diine kon nag léppam man la war lépp maa koy def lépp maa koy def jooju nag dañ ciy dégg ne mooy ci saayir ak ci baatin kon fam jëm itam moo koy dégg moo Serigne Touba miñ bokk bokk di ko liggéeyal mu wàcc dañu ma taxaa moo koy dénk Serigne Touba mi waxeen lépp man la war saa si lam ci def mu xeeb ko lool waaye baatin bi mooy ëpp lépp ndax dénk ko Serigne mooy li am solo te sëriñ bi sant na ko cant koo xam ne moom sëñ Fall dana gis foofee ndax seera sëñ mu taxaa mooy ngërëmul Serigne Touba ko yóbbaale nag yóbbaale ngërëmul Serigne bi te foofee na ngërëmul sëñ Tuubaa rek la am solo ndax moo fi may ngërëmul suñu borom li ñuy sàkk loolu sant yàlla bu rek gi itam am cant sëñ Xaadim mi nga moo ko njëkk dugal sama ma nekk leen sëñ bi moom it dama dimbali sama liggéey ndax loolu rek lañ fas yéene nekk ci fa mbokk yi nekkal fa taalib yi nekkal fa ñëpp di yitte joo amit mën sañoon ñoo di ko yëg ba mën ko yëgal sëñ bi ba sëñ bi lam ci yéene taxaw man ko waaye yitte yëg googu itam dañ ma dañ ma koy dimbalee man ma it ma mën koo liggéey la sëriñ bi nañ ci sant sëñ Xaadim mi bokk yëpp sëñ Xaadim it ba mu waxee Mamor mi laaj defoon sama ndaw nam sëriñ bi di ñëw fii ba lépp rafet kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xanaa gën na ñaan doole ci ñaan doole yàlla daal daje sëriñ Touba ni mu doon liggéeyam sëriñ Touba teeru ko teral ko teg ko fa fa muy teg taalibe bi yëm gërëm ñëpp yóbbaale ngërëmam ngërëm boobu muy ngërëmul suñu borom ngërëmul suñu borom moo fa ñeneen ñu ngi koy sant di jàll ñëpp di jaar kaddu seere yoo xam ne murid yëpp mënees na ko seere waaye ginnaaw yëkkati kaddu yooyu sëñ bi nee na kaddoom mi ngi koy jaarale ci sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Abdou Fadal waaye noonu itam day jàll ci ak Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne mooy sëriñ Touba ci kaw suuf ñu ngi ñaan suñu borom mu yeggal ko fi lool te wéral ko Cheikh Abdou Fadal mi nga xam ne moo fi bàyyi ko genn seere seen seere la seere soo seere la soo xam ne ñëpp xam nañu ne Mourou Sadikh la woon taalibeeb Serigne Touba la woon banqaas bu rëy la itam ci lislaam moo dem tey doonoon jàmbar joo xam ne ñëpp xam nañ taxawaayam ci liggéeyal Serigne Touba ñëpp xam nañu taxawaayam ci digganteem ak jaami yàlla yi ku mënoon taxawu doomu aadama la ku mënoon a dimbali doomu aadama la ku mënoon a ku ñeme woon dëgg la itam nag ku mës a dégg ay doom defe naa bu soññee bu rëy lay doon lay doon ci sa diggante Serigne Touba waaye soññee bu rëy lay doon ci sa diggante lislaam sëriñ bi wax ne mi ngi koy jàll mboolem mbokk yi nga xam ne moo lay fekk di rakk yi di njaboot gi. di ñaan suñu borom mu sàmm leen ba mboolem naal yi nga xam ne Cheikh Abdoul Fadal bàyyi woon na ko fi ngir liggéeyal ci Serigne Touba ngir liggéeyal ci lislaam ngir wane baatub ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah nee yàlla na ruusal ci ñoom te sàmm leen te taxawu leen te dimbali leen di ñaan suñu borom fee mu jëm dina ko fee mu jóge te loolu rafet nañ ci njort ndax taxawaayam bir nañu ne la mu bëgg digganteem ak sëñ Touba sëñ Touba dana ko gàttandu ko defal ni mu ko defal woon fii ci àdduna dana ko defal fee mu jëm maa ngi doyloo sëriñ bi ak dundal njàngalem sëriñ bi loolu ku ko xam ku ne xam nga ne ci loolu la mas di nekk te loolu moo doon bëggu sëriñ Muntaxa mii kon ñu ngi ko koy jaale di ko siyaare te di ko ñaan ci ci barkeb sëriñ Touba mu ñaanal ko fa mu ne sa borom dolli ko fa xéewal moom moom mi fi nekk itam sa borom gën ko fee yàggal lool ba li nga xam ne naal na ko yéene ko bëgg koo def mu def ko gannaaw loolu nag sëriñ Fallu moom mboole seen ñi nga xam ne lislaam ñor na leen ñëpp ñëpp a ko ñàkk ndax képp koo xamante ne lislaam yitteeloon na la xam muy sa yitte nga di ca sonn bàyyi woon nga ko xel ngir yàng doon jaxasoog moom jaxasoo hin woo xamante ne boo agsee ci moom ak ci moom sa xol ak sam xel yëpp ngi jaxasoo ak moom ndax ci lépp luy dundal lislaam ci la mas di xëy ci la mas di gont lépp luy dundal ak bokk ci la di xëy ci la di bokk mosu nekk ci lenn lu dul luy dundal diiney lislaam ak luy dundal ak bokk bokk yi nga xam ne moom la bokkal di bokk kër sëñ euh, kër euh, soxna gépp duñu wax bokk kër sëñ Ibra Fari waaye bokk kër sëñ euh, soxna Farimata Lo gépp ñëpp bokkoo woon na leen bokkoo itam mbooleem kuy di dundal yi lislaam defoon na ko di boko go xamne bokk gu wér la lepp lu man ci lu bax ci digganteem ak ay bokam don nako def lepp lu man ci lu bax ci digganteem ak l'islam don nako def lolé nag nun ñi di waral di jël kàddu dano bokk ak mom bay yalla dogal nu makko ko nangu won kilifteef gu gi doxon suñu diggante ak mom nangu go xamantene nangu gu wér la suñu ak mom ko xam tok nga ci ab jotaayam ku ne wax na la ne la sëñ Mor mii de li yàlla doxale suñu diggante ak moom nangul naa ko ko te jox naa ko ko ba mu sëkk te loolee itam yàlla def na nam ko doon waxee noonu la ko dëggale loole itam amul lenn lu muy mas di def ca Daaru Mbakke loo xamante ne du ci sama loxo la ko jaarale wala day ñëw ba ci man wax ak man ca loola ba noppi loola la cay firnde da jumaay Daaru Mbakke jee keroog ba mu ko bëggee taxawal defar plan bi ba mu àgg mu ñëw kër bay Touba magalu seigne Ibra lañ doon def bañ ko defé ba ca takusan mu yëkëti plan bi wan ma ne ma juma la juma naal ca daru mbacké am ak amam nang mi ngi aju ci sa bat ak ñakami tam mi ngi aju ci sa bat ndax mag ñi kat yow lañ yilif way yow man yaama yilif so ci andé rek dana ko taxawal kuma ca fekk dimbalé ma ca dana ko taxawal kuma ca fekkuti dana ca def lama man lepp bam kero ba nga xamante ne yàlla dogal na mu wax ma loolee nam ma ko waxee ba ma ci waxtaanee mag ña ba nappee ah ñu juboo ca ñëpp jox ko ca kàddu noonee ma ko waxee woon rek noonu la ko doxale kero ba mu ko bëggee tàmbali ne ma dama koo bëggee tàmbali kat yaay seet ku koy kuy teg xeer wi ak kuy kuy kuy kuy génne xebla gi yaa koy seet waaye man li ma la waxoon rek ci laa ne man daal maa ngi ci sa gannaaw loo loo wax loolu laay def loo loo xam ne defuma ko foofe ca Daaru Mbakke yaa ko waxut waye lo ma wax dana ko def wallahi laasim lol la ma wax te lolou la dund ba bis bi mu fi jóge lépp lo xamantene rek mang koy def buma ko waxe buma ko ko waxe dana ci def lam ci lam ci wara def lépp kero ba nga xamantene wax na ma lolou ma wax Serigne Cheikh mu serigne Abdou ma wax ko bay Touba mu ma Serigne Cheikh mu serigne Abdou Khadir munu may def dara mu nek fi te waxuma ko ko nañ ko ko wax ndaka yàlla dogal serigne Cheikh ndaka ndakaaru la ko fek ma téléphone ko mu wax ma ne dana ko yabal Serigne Fallou mu ñëw fa taxawé ko tegal len xéro bu ngeen amee kuy defar euh, euh, xebla ga ba mu ba ma ko waxee ba noppi mu ne ma kon nag yaa ci des ma dem ci Sidi Boussa sëñ Moulay Boussa moom laa dem ci moom waxtaan ci moom mu nangul ma la ma la ma bëgg ñu ànd ak sëñ Fallou moomu ñu ñëw teg xeer wa Sidi génne xebla ga sëñ Fallou teg xeer wa mu tàmbali tabax ba la ëpp ci ay bokk am nañ ca ñu ca def de waaye ñu ci gën a bari defuñu ca dara lépp moo ko def. ba mu sotti colet lépp ci loxoy Abdoulaat mii la ko jaarale ba liggéey ba sotti keroog ba liggéey ba sottee jili Mbàkke rakam mii la la jox caabi ya teg mu indi ko sama kër waxtu yii fekk nañu ñuy noddu tisbaar mu indi caabi ya ne ma Serigne Fallou nee na jumaa jam doon defar ca Daaru Mbàkke waxoon na la ne yaay kilifa ga liggéey na ko ba mu àgg caabi jaa ngi nii yaa xam koo koy jox loolee ma ba ma bañ bañ bañ jullee tisbaar man ma ne jiili gannaaw indi ngeen oto kat te booba sëñ Mamor Say moo fi nekk nan dem ba ca moom ma jox ko caabi yi bañ ko joxee caabi yi ba noppi la door a dem seet jumaa ja ba gis ko waaye diiru lañ koy liggéey lépp am na ay ngantu yaram ba ba faa dem. gannaaw buñ ko nee caabi yaa ngi nii nag noppi na mbégte moom ca bég ak bokkoo gam ko bokkoo loola tax na la muy télé télé booba mu ànd ak ay nit ba dem fa ba gis ko bañ àggee maa ko woo mu euh, sëñ Mamor wax ma ne ma bëgg nañ ñu ubbi ko barab waxtu sangam maa ko woo mu wuyu ma ma ne ko jumaa ja dañ koo bëgg a ubbi bis sangam loolu rek la ca am. mu de kon nag la ca war lépp de danaa ko def loole itam la ko waxee woon noonu la demee kër sëñ Ibra Fari gee nga xam ne moom lañ fa taxawal itam keroog ba nga xamante ne sëñ Mamor wax na ma ko ba ma ko ko wooyee wax ko ko dafa maa wax ci fa ma ko wooyee mu wuyu ma la ma wax ne ma. dana la jox 10 tonnes ciment yo xamantene ma bu ëllëgee ndawli li dana ko indi ci sa loxo la koy tek lama la waxoon rek la lay dem mag ñi ñom dañ fay nekk jiiteenu jité la waye yow yaay yaay sama kilifa go xamne lo ma wax dana ko def lolé lolé la def Serigne fallu dirup limu nek di dundu fu ma sa dajé ak man jox na ma cër ba ma wara jox ba ma sekk lolé itam la doon dund ci mbolem bokk yi lam doon wax itam bad la won bo xamantene lolé mo moo da ko daan wax ne bu kenn wéeyi ci man jott kuy sama kilifa ku ne na ma teg lam ma war a teg ba xam danaa ko wéel wala duma ko wéel waaye bu kenn wéy ci man jot loolu naka jëkk lu mas di bañ la waaye bu kenn foog naan na naan uh, bu ma ko waxee wala bu ma ko defee uh, uh, loola mus ko nangu ci kenn lépp lu ko waaye sant tey kilifaam rek def na ca la man ndax kër sëñ Mamor geefan ca Daaru Mbàkke day moom kenn defu ca dara keroog bokk ko sëñ waxee wax ko na ko bëggee noonu la ko defee ba mat mu muy nit koo xamante ne umma islamique bépp ko ñàkk ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba sans borom defal ko jàmm fa mu ne te dolli ko ko fay ko ab liggéeyam itam moom bokk na ci ñi nga xam ne rafet nañ njort ci ne li mu liggéeyal lislaam bu ko lislaam bu ko yàlla fayee dana am jàmm fa mu ne bokk na ci ñi nga ñi ko yab ñi nga xam ne seenug dund am na njariñ ci la bokkoon ndax lim mën ci ag bokk lépp ci lu koy rafetal ak lu koy euh, taaral lu koy lu koy tax a dëgër ci ak bokk lépp doon na ko def ci ci bokk gépp nag lim man ci diine lislaam ji itam ci ñi nga xam ne donte ne bokkuñ ci tarixa murid bi itam ñim ci xamoon te ñu dëggu ñëpp jote woon nag ñoom doon jaxasoo ñoom nit la koo xamante ne daal liñ mën a wax ci moom mooy lépp lu baax boo fa demee da nga ko fa fekk fépp fu ñuy defee lu baax wala ñu du ko fa waxe boo fa demee da ko fa fekk wala nga fekk fa jëfam ñu ngi ñaan ci barke bi Sëriñ Tuubaa daal sama borom dolli ko jàmm te dolli ko xéewal fa mën na li ci des nag ci wax ji si Abdou Lahad mi mii nga xamante ne mooy sunu rakk te nekkoon ak te nekkoon Daaru Mbacké te lam doon def ci Daaru Mbacké ak lam doon def ci bokk yi ñeneen feneen lu ci bari bari bokk na ci ñi nga xamante ne ci loxoom la doon jaar ak ah, diggaleem nag moom waaye ñu ngi xam leen na daal moom nit la koo xamante ne diine lislaam jëpp ko ñàkk fi mu toll ñëpp ko yëg ndax mës a seqib tànk wala mu wax benn kàddu boo xamante ne défendre diine taxul mu di ko def amut. yar na itam ay rakkam ak i bokkam yëpp te daan na leen jàppale daan leen dimbale teg leen ci siraatal mustaqim ndax loolu mooy ndimbal fexe ba nit ki tege ci fa mu war a tege xam boppam as la woon ku doon dunde aw ñaqam. Eh, di yëkkati suñu kàddu tam nag ci suñu mm, ndigalal kilifa muy Serigne Cheikh Mor Mbacke mii mu mel ni kàddu gi dana xaw a jafe ci ñun ndax eh, ki ñu ñàkk. ak jataay bi ñu toog tax na kàddu gi na xaw a jafe waaye ñu dongant rek lépp lu ci jaarul yoon ñu jéggal ñu ko te xam ne matadi doomu aadama rek la. Eh, kii nga xame ne nag moo tax ñu daje fi tey kooku li ma wax rek eh, dafa sori ci ñun ba tax na kàddu yi du gudd kàddu yu seede rek lay doon eh, te seede yi nag wa maa sahid naa illaa bi maa xalim naa lépp looy seede na fekk nu mu nekk loo xam bi mu nekkee mbokkum ñëpp nekk ab jullit nekk taalibu Serigne Touba. Ah, jaxasoo ak ñëpp tamit yàlla dogal it mu am wat buñ jaxasoo ci wàllu nu ñu ko waxee ci wàllu dëkk ba kon loolu moo tax ñu yëkk suñu kàddu loolu tamit 2000 2007 euh, defe naa euh, jamono yooyu lañ jaxasoo moom ci wàllu lu jëm ci dëkk ba ñu teg dëkk bi suñu loxo ci bokk ci euh, ndigalal Cheikh Touba mi fi nekkoon kilifa Serigne Ibra Fari ànd ko bokk yëpp bokk farimatuloo yëpp keroog bis mi bañ ko tegee sama loxo loxo ak tey jii moom sëñ Fallou mi mus da jóg sama pegg di ma jàppale di ma taxaw di ma ànd ak man ci liggéey bi dëkk ba ngir dëkk ba jëm kanam 2008 euh, ya ca topp lempab dëkk bépp moom moo ko fay mu nekk 43000 francs moom sëñ Fallou mi moom moo ko moo ko fayal ñëpp maanaam wala jot ma lempab dëkk ba ma ñëw wan ko nam toll lépp mu fay ko mi 48000 francs loolu la njëkk a jëf leen rek man ca dëkk ba ne ma lempab bi daay naa ko fay ba noppi soo ko wax ci leneen euh, mu nekkoon koo xam ne euh, ni ma ko waxee rek musu da dañ di jóg ca loxoom di jóg ca dëkk ba ak doom ak xelam ak xalaatam lépp nag nekk lu defar luy defar euh, loola moo ñu jural ni ko sëriñ bi waxee ci wàllu tabax yooyu fa am muy liggéey bu yàlla boobee muy néegu jumaa ba euh, mu taxaw ci nam ci taxawee noo xamante bu ñu toogoon fii di ko euh, leeral xañ na day jël temps waaye li sëñ bi wax doy na sëkk ñu yem ca ak daaree sëñ Ibra Fari tamit ba mu ñëwee ci guddi di ko seet si fekk ma fekk ma fondation ñu gas fondation ba noppi ñu ànd wër ko ci biir pax yi daf ma wax ne ma sëñ Abdoulaye ma ne ko Mbàkke mu ne ma kër gi de moog jumaa ji laa yemale daal ne ma kër gi maag jum moog jumaa ji laay maag moom ak yàlla kese ñu ànd ba mu demee la daal di wax ni sëñ bi wax noonu daal di gën a leen joxe ca ba jëmmi jamono ji wax loxo mosu caa jóg euh, euh, bis bi nga xamee ne mooy bis bi mu gën àdduna muy bis bi nga xam ne moo gën bis bu dul moom muy guddi mawlid sallallahu alayhi wa sallam bis boobu tamit bis bu mu daan sonne ci dëkk ba la di ca taxaw taxaw taxawaay mat sëkk di ko jaare samay loxo ndax lépp lu jëm ci wàllu xéewale moom moo ko faral yónnee at mu jot mu jënd aw nag yónnee ma ko ne ma nañ ko def ci guddi gi ba ci eh, gàmm gii moo ci mujj nag way agsi na ñu defar ko jox joxe ko ñu ko war a jox ñëpp car bi ñu ko joxe ba noppi ba ma génn ci penc bi toog ci garab gi laa jël sama téléphone di ko woo téléphone di ko jaa ngir ko ngir eh, jëf ji jëf ci laa ko mu sone ba dagg jëlut mu sone waat ba dagg jëlut mu bàyyi ba 3 heures moo waat ko mu dëgg jëlut mu sone waat ba dëgg mu bàyyi ba moo waat ko mu sone ba dëgg jëlut mu sone ba dëgg ci une nit la koo xamante ne bi kon ci wàllu dëkk ba ci tàmbaleem ak mujjëm lépp ànd na ko ñun muy lu rafet te noonu la ko yaatale tamit nag ci monde l'islam bépp noonu la ko laata ci réew mi kon daal kii fi jógee ni ko sëñ bi waxee léegi rek l'islam moo ñàkk mbokk yi moo ñàkk diine moo ñàkk ñëpp mu ñàkk waaye Daaru Mbàkke ñàkk nañ waaye njaboot Cheikh Ibrahima Fari nag ñàkk nañ ndax nekkoon na koo xamante ne bii nangu woon na Cheikh Ibrahima Fari jaboote ko nekkoon na ci biiru njabootam tey àndoon na ñoom ci lépp guddi ak bëccëg kon ñoo ngi ñaan fee mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jógee ci barke Cheikh Ahmadou Khadim eh, liñ fi ñaan ci ay xuraan yàlla na ko yàlla nangu li def salaatu ala nabi yàlla na ko sama borom nangu te xare ko àjjana te njaboot gi fi bàyyi sama borom teg ci loxoom lépp lu mu naaloon yàlla nañ ko àggal bi jaay Cheikh Ahmadou Khadim ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu